sécurité bi bu ñu koy wax mooy euh, assurance parce que tey jii arbitre yi ngay gis ni amul kenn ku ci assuré te gis ngeen combat yi ni muy demee euh, li ci mujj rek mooy combat bi passé bi amoon fii tojoon nga xam ne lu ne xajoon na ci te les arbitres tous les arbitres du Sénégal kenn assuré wu ci mu bokkoon loo xam ne ñun dañ koy kaas dañ ne du yoon ñu continuer di jël ay risques mais dañ toogoon di ko muñ nan ah xëy na déwén mu changer mais chaque fois bu ñu nee day changé ñu yóbbuwaat ñu ne xaar leen xaar leen ba finalement duñ ci mën dara

arbitre dañu 70 pour mise amul ben région bu koy jot pratiquement amna région yoo xam ko ba affaire bi ci gouverneur ñu régler mom la région de Fatick la région de Fatick la Fatick euh, la région de Fatick ñom ville effectivement ñom ñoko ñom ñoko ba am ko sommes lolu ñu ñun arbitre diko ñax ñu wax CNG ah ñun buñ mu changé CNG défaut de dara parce que devenait munuko munul yok honoraire arbitre parce que honoraire arbitre ma fatte encore une fois euh ñun combat li ci ëpp bo jëlé 86 90% au combat les arbitres perçoivent 52500 5 arbitres ñoy recevoir 52500 lan mo tax parce que ñun biñ fi nekké man bi may arbitrer ba légui ma ngi arbitrer depuis 97 lolo fi am 7 combats lañ doon arbitrer di jot 35000 légui ñu yok combat à 10 lan lañ ci yok moy moitié wu 37500 moy 17500 37 35 17500 ñu yokk ci 37500 moy mu jox ñu 52500 5 arbitres du CEDO 52500 ak risque énorme yi fi am man mënon na comprendre ça ñu assuré nañ la mais vraiment xaliss bi mënuñu si démé ni mais assurer wuñ la joxuñu la prime de risque mais lan la ñuy wax souvent ay honoraires ngay jot effectivement honoraires mais honoraires les honoraires sont discutables ne war ngeen si négocier yeen ñii di arbitré ñii di jot honoraire ak CNG war nañ mëna négocier ba xam ci lan lañuy jot mais nekul ne dañ ne honoraire honoraire moy ndampay du xey rek ne la am li non loolu moom taxuñu jóg risque yi ñuy jël ñun ay père de famille lañ ku ci nek da nga yar famille so gisé tay ji nak ñuy wax lamb ji ñun ñëpp ko bok bëgg défar defar taxa ñu suñu wayé né arbitre wuñu CNG la meilleure des façons c'était de dire kaa ñu wax parce que dañoo wax ba seuss moo tax ñu jël décision

dañu né nañ observé 48 heures yi nañ euh, observé 48 heures de grève yi xool ndax dinañ wax ak ñun kenn woowuñ tey ñu am chance am euh, réunion comité élargi gaay yi ñëpp wax ci point bi mais bo xolé liñ ci waxé en quelque sorte président Alioune Sarr presque daf ñu menace parce que dama né prenez vos responsabilités ñun suñu responsabilité nag mu ngi ni ñu ngi koy jël parce que ay père dafa ñun dañay xalé yu ndaw de dañoo yàgg ci lamb ji liñ ci yàggee mosu leen ñu dégg suñu waxé tay dañoo sës on est resté très longtemps parce qu'on nous dit souvent il démembrement a état CNG un comité effectivement c'est un comité mais jusqu'à quand jusqu'à prendre des risques pour mourir nous ko def non ne pas après mais quand on a consulté la base nous arbitre région non non 48 heures on va respecter cela. Hein? attends on leur a dit ça le vendredi effectivement mais ce que motax réunion je fais partie du CNG en réunion de bureau bi ma dit ñu rencontrer ñu waxat dara régler mais lo réunion j'ai dit à haute voix

parce que nous nañ foog ne dañuy ñëw pour yàq combat non nous ne sommes pas venus pour ça Maintenant, ñu ministre oh, je vais consulter la base dinaa gis arbitre nous changeons changer décision peut-être on va arbitrer le dimanche peut-être maintenant quand j'ai consulté les arbitres ñëpp nee nañ ak ñi région ils ont insisté moo tax boo gisee ñëpp nekk ni réunion bi lañ defee pour jël décision on a pris la décision sous tam duñu arbitrer voilà loolu